أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين إخوة الإيمان والإسلام والإحسان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki M-Media group nuuru daaray nii ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentem boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu xaq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nungul ñu suñu jaamu yàlla te nungul ñu mu nungul ñu suñu jaamu yàlla te jéggal ñu suñu rëcc-rëcc di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam néew boobu nag ak ziar bi ma di ko teg ci loxol kilifa rek kilifa gi ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ko ñaan mu jottali ñu ko mboolem mbokk yi ne ci biir groupe bi yëpp daal ñëpp nga xam ne ku ne ci groupe bi rek jox nañ la ziar boobu ak néew boobu di la ndokkeel bu baax a baax a baax di la sant bu baax a baax it di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu dolli ñu defal tawfiix bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne bii moom la nu yàlla boole te mu doon tawfiix lool doon tawfiix lool doon sunu yokkute wax dëgg yàlla ci li nga xam ne lii moom la ñu war a taxawee ci liggéeyal sëñ bi maanaam mu yokkoon ne ci sunu waar bu baax a baax a baax ñuy sant mbokk yi ci bàyyi seen xel yépp waaye dugg ci liggéey bi te di ci taxawu ngeen ci taxaw saa su nekk di siyaare jëriñ rek muy mu dungom ñi nga di ñaan yàlla dolli ko jàppale dolli ko taxawu ba liggéey bi mu sumb te bokk ko ñun yàlla defal na ci lu kawe suñu njort ba nuñ ci bëgg a liggéeyal sëriñ bi rek maanaam nu mane ko nu kawe suñu njort ci ay jumtuwaay ay man-man ay xam-xam ay leeral ak fànn gu mu mën a doon rek bu ko jëmale kanam ñu ngi koy ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu jàppandal ko ba ñu am ci lu kowe suñ jort bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon xam naa tey liggéey bi dañ ci daal di sóobu rek di tàmbalee ci laaj bi nga xam ne bii moo fi jëkkëroot tey muy jóge ci Moodu Ngom jëwriñu liggéey bi ñu di ko ziar bu baax a baax rek comme ni ma ko waxoon di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla mu gën a dëgëral taxawaayam gën koo jàppale bi jay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom dafay laaj ne li muy laaj day jëm ci wàllu julli muy wàllu sàppe maanaam bu dee julli mbooloo la sàppe yooyu nga xam ne moom la ñu def ci biir julli gi sàppe yooyu maanaam ci fan la war a tàmbalee maanaam day laaj min ayna yabda'u safu salaat yi yaminan aw shimalan maanaam day laaj ndax sàppe moom bu dee julli la ñu tàmbalee ko ci ndeyjoor wala ñu tàmbalee ko ci càmmeñ ban lañ ci war a def dañ koy wax ne ko warada an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama annahu qaala wassitul imaama wa suddul xalala jële nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xadis bu leer nañ mu ne su ngeen demetee ci julli mbooloo maanaam na ngeen tàmbalee fa nga xam ne fa la imam ba taxawee na ngeen fa tàmbalee sàppe ya te bu sàppe yi matee lu ci di diggante rek na ngeen fexey sakk ko ndax ne ne diggante nga xam ne mooy des ci seen diggante di def ay porox ndolu noonu ne ci la seytaane di jaar di leen jax-jaxee kon wal muraadu jaalul imaam yi wasatal ma'mumiina mooy dafa bëgg dañoo bëgg bu imam bi taxawee foofu mu taxaw nga xam ne moom day taxaw ci digg mbooloo mi maanaam ñi ne ci ginnaawam bu ñuy tàmbali sàppe rek maanaam ñu tàmbali ko ci ginnaaw imam bi ñii taxaw ci ndejoor ñii itam di taxaw ci wetu càmmiñ gi ba keroo sàppe say mat bu beneen sàppe ñëwaatee it ñu defewaat ko noonu tàmbalewaat ko ci digg ba maanaam tolloog imam ba ñëw taxaw ñeneen ñi bu ñëwee ñi jaare ndejoor ñi jaare càmmoñ ba keroog sàppe yooyu di mat bu ko defee daal noonu la ñu bëgg daal sàppe dina tàmbalee mooy bi fi imam bi taxaw su imam taxawee maanaam foofu ci ginnaawam nañu tàmbalee foofu sàppe si ñii di mottali aw ndeyjoor ñi ci des di mottali aw càmmeñ ne nag wa fil xadiis yi dalalatu ala anna anna sunnata wuquful imaami muxaadila wasati safi fa yabda'u safu min xalfil imam ne la kon bu ñu jàngat xadiis bi ba mu gën a leer ci ñun mooy xadiis bi dafa am ab tegtal bu ñuy won ne li nga xam ne lii mooy sunna dal ci wàllu sàppe bu julli mooy imaam bi na taxaw ci digg sàppe yi maanaam bu ñu sàppee moom imaam ne ca kanam na fekk ne sàppe yëpp moom imaam mi ngi ci digg sàppe yooyu bu ko defee ne ne sàppe daal la cay sunna kon daal mooy nañ ko tàmbalee ci ginnaaw imaam bi su ko defee nag di ko tàllal di ko yokku ñii aw ndeyjoor ñii aw càmmeñ ba kero sàppe ya day mat day ne nit wa yakunul yaminu akthara minal yasaari bi yasiri ne ne nag su fekkee ni sàppe yi dafa mënta fees ba ndeyjoor bi fees càmmeñ bi fees ne ne nañu fexe yi ñi nga xam ne ñu ñëw féete ndeyjoor maanaam gën a bari te bañ a gën a bari lu baree bari du ko defee daal foofu dañ ko fi wax daal ne ko daal bu ñuy sàppe daal nañ ko tàmbalee ci ginnaaw imam bi maanaam foofu la sàppe war a tàmbalee beneen laajam bi ci toppaatit dafay laaj biral gi nga xam ne gi nee na da koy seetlu ci nit ñi bu ñuy julli julli koo xam ne gi julli gi yàllu la ñuy wax allahu akbar ya ak sami allahu liman xamidoo ya liman xamidahu ca biir julli ga di ko wax ca kaw maanaam di ko biral doonte jullik yàlla lay tamit ñoom dañ koy wax ca kaw loolu lay wax ne xukkumul jahri bi takbiratil intixaal fi salaati sirriyati lan moo di atteeb kàbbar yi nga xam ne mooy kàbbar yi nga xam ne mooy wane ne yaa ngi toxaw yaa ngi toxaw di def point julli gi daal nga xam ne sooy kàbbar kàbbar am na da ngay wax allahu akbar sooy waaj a sëgg wax allahu akbar booy siggi wax sami allahu liman xamidoo liman xamidahu ne yooyu lay laaj bu dee jullit bu ñuy yalu ndax dañ ko war a yalu wala déet dañ ko naan fa xayrul imaami wal muballighu wal muballighi anhu fala yustahabu lahu al jahru bisalaami aw tak fi takbi aw aw takbiratil intixaal sawa'un kaana ma'muman aw munfaridan boobu dañ ko naan maanaam bu dee imaam la bu ne imaam bu ñu bu jiitee ña nga xam ne ñi ñoo topp ca moom maanaam soppuñu maanaam ñuy wax asalaamaaleykum ca kaw maanaam di ko biral ca kaw waaye itam kàbbar yi nga xam ne mooy kàbbar yi lay toxale ci point yi di la jàllale ci yeneen itam ne ne du ñu bëgg maanaam nga di ko wax ca kaw ne ne nag ñàkk wax ca kaw googu nga xam ne gi soppuñu ca wax ca kaw ga ne ne moo xam ku ñu jiite la wala koo xam ne daa ànd moom dong di julli lañ bëgg daal mooy yooyu maanaam ñu di ko yàllu bu fas sunnatu li xayril imaami al israaru bi takbiri ma'muman aw munfarid ne ne daal li sunna daal ne ne ku dut imaam nga xam ne imaam moom daa war a wax ca kaw ñu di ko dégg waaye ñi muy keneen ku mu doon muy ñañuy jiite wala ku ànd moom dong di julli daal lañ bëgg ci kàbbar yooyu maanaam mu di ko yàllu bañ ko wax ca kaw bu dee ni jamono jullit yàllu la da ciy boole sax xam naa jullit bu doon ni da ngay biral ca njàng ba daal boo àggee ci allahu akbar yaak sami allahu liman hamida yow nga di ko yàllu te bañ ko yëkkati ca kaw yeneen laaj ji ci topp Papa Mor Niang moo ko fi yónnee Papa Mor Niang ñoo ngi koy ziar bu baax moom itam di ko ndokkeel moom itam ku bëgg lu baax wax dëgg yàlla yittewoo ko lool moom dafay walaaj man zaada ala adadi rakaati rubaayati wa yashukku hal salla xamsan aw sittan dafay wax ne moom dafa mas di julli julli ngoo xam ne gi ñeenti rakaa la waaye nag bim jullee ba noppi maanaam ba sëlmal moom daal am xelam dafa jaxasoo muy sikki sàkka ndax moom julli gi mu doon julli tamuy ñeenti rakka ndax julli ko juróomi rakka wala juróom benni rakka loolu lay laaj kon maanaam foofu moom dañ fi jàppare ne kon julli gaa la kuli xaalis moom ëpp na dem mi ngi saka saka ci diggante ñaari lim te lim yi mooy diggante juróom ak juróom benn kon julli gi ëpp na muy laaj nag lan mooy atteeb julli googu dañ ko naan an abdullahi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla zuhra xamsan fa qiila lahu aziida fi salaati xaala wa ma daaka xaalu sallayta xamsan dane jële nañ ci kilifa gi ñuy wax abdullahi mu ne yonente bi day mas naa julli julli tisbaar def ko juróomi rakaa maanaam juum def ko juróomi rakaa biñ ko laajee ne ko waaw julli yi ñu doon julli ñeenti rakaa ndax léegi dañ ko yokk def ko juróom yonente bi ne leen waaw loolu lu tax ngeen di ma ko laaj ñu ne ko ah yow kat tey jii julli tisbaar gi danga ko julli juróomi rakka ne ne bi ñu waxee loolu yonente bi ne ko day tey juróomi rakka nga julli fa sajada sajdatayni baadama sallama ne ne yonente bi dafa daal di sujjóot ñaari sujjóot yoo xam ne sujjóotab njuumte la maanaam sujjóotab jamaj la def ko ginnaaw ba mu sëlmalee kon mu ne fa dalla fa dalla ala tamaami salaati ne ne nag kon loolu day tegtale maanaam jullim nga mat na yàquwut maanaam du doon lu ñuy baamuwaat waaye da ko war a dañ ko war a sujootal sujudu sa muy sujootab jabaj ndax bu fekkan ni dolli googu mu dolli ca tisbaar ga ab rakkaata da ko mooy da koo julli juróomi julli dafa yàq julli ga kon du ko sujootal waaye sujoot bi mu ko sujootal moo ne tegtale ne kon julli ga kon baax na waaye dañ koy defaree sujjóotul ko sujjóotam jama ci dégg nga de kon na ne fa lamma iqtasara ala sajdatay sahwi dalla ala tamaami salati ne ne biñ ko waxee loolu maanaam mu doylu rek yem ci ne daal di sujjóot ñaari sujjóot yoo rek lay tegtale ne kon julli ga mat na kon maam moor ñang pap moor ñang lii ko dal nii muy day sikki sàkka juróomi rakkaa la wala juróom benn rakka la kon foofu rek lañu koy mën a atte maanaam jàpp ne moom julli ga maala kuli xaali moom ëpp na te jëm dafa ëpp te bi mu dalee yonente bi maanaam nii la ko jullee maanaam waxul na julli gi dafa yàqu waaye dafa sujjóot sujjóotub jamaj boobu kon at julleem gi it moom it noonu lañ koy mën a atte rek ndax dafa dolli ma maala kuli xaal dolli na kon la ma war la mu war a def mooy bi mu jullee di ba pare di sikki sàkka mu daal di sëlma daal di sujjóot ñaari sujjóot yi jamaj yooyu nga xam ne yii moom la war a sujjóot ñaari sujjóot yi nag du faat maanaam jëm ginnaaw loolu yox su sajda baada la maanaam da ngay seen ba pare moom boobu sujjóot lu mu yàgg-yàgg rek maanaam soo ko farle ko wala nga dem ba xam ne da nga ko war a sujjóot loola mën nga koo sujjóotal julli yooyu nga xam ne yii moom nga juum di sikki sàkka juróom la wala juróom benn ba tey lu aju ci julleem googu dañu ne dahaba jumhuru ahli ilmi annahu ida salla rubaayatan xamsan summa dakara baada salaamihi yasjudu sajdatay sahwi ne ne boroom xam-xam yi ñu ci ëpp mbooloo moom ñu wax jumhuru ahli ilmi ne nañu nit ki daal bu dee julli julli ñeenti rakka julli ko juróom ginnaaw ba mu salmalee mu daal di fàttale ko ne ah moom kat yokku na ci julli gi rakka ndax da julli na ko juróom day sujjóot sujjóotu sahwi bi rek bu ko defee jullim googu daal daal di baax kon daal julli googu daal nañ ko dugal ci foofu muy da ko war a sujjóotal baada ñaari sujjóot yoo xam ne yi moo koy defar waaye yokku googu mu ci yokku fekk matut lu tolloog rakkaay julli ga rek maanaam yokku googu du yàq julli googu nga xam ne gi da ko yokk beneen laajam bi ci toppaat mooy day laaj xukkumu salaati xablal waxti maanaam koo xam ne dafa julli jiitu waxtu wa maanaam ndax ne loolu moom da ko dal dafa masa am julli gum julli te gis na ne bi mu ko jullee kat fekk na boobu waxtu wi jëtakut ndax toogaat na ab diir doog a dégg ñuy julli dañ koy wax foofu ne ko jaalallahu lissalawaatil xamsi awxaatan maxsuusatan wa mahdudatan laa tujzi ussalaatu qablaha dañ ko naan julli yi nga xam ne daal mooy farata yi te mooy julli juróom yi yi ñu farataal ci bés bi muy guddi ak bëccëg yooyu yàlla da leen a tànnal ay waxtu yoo xam ne yi maanaam dañ koo jagoo te it dañ koo teg muy dañ la naan julli bu mu doon wutal nañ ko waxtu woo xam ne wii ca lañ ko war a julli kon waxtu woo nag maanaam boo jullee ci waxtu woo xam ne dafa jiitu waxtu woo ñu wutal julli googee lu ne julli googee du baax kon julli daal njëkk waxtu boo ko defee jàppante julli googu moom boo yeboo def ko naafila rek te su waxtu wa jotee maanaam nga julliwaat waxtu wa ndaxte dane inna salaata kaanat alal mu'minina kitaaban mawquutan mooy la mu doon wax fee mooy dana julli dafa nekk lu war ci jullit yi muy farata ci ñoom waaye tam mu doon loo xam ne dañ ko wutal ay waxtu yoo xam ne yii julli gu mën a doon rek ca waxtu moowee lañ ko war a def waroo koo jiitu dana fa salaatu ida waqaat xabla waqtiha xosibat naafilatan wa wajabat iaadatuha ne nag julli dal fu ko nit ki jullee maanaam lu jiitu waxtoom ne ne julli googu dañ koy jàppe ak naafila waaye itam julli googu bu waxtu woo jotee ka julli woon julli ga daa war a baamuwaat julli googee julli ko ca waxtoom kon julli googu mu julli jiitu waxtu wa daal na jàpp ne ak naafila la te mu baamuwaat ko maanaam day doon loo xam ne kon da koy war a fay ndax dañuy jàpp ne kon julli googu moom ak naafila rek laan ndax dafa jiitu waxtu waa yeneen laaj yi ci toppaat Moussa Ndiaye boo ko fi yónnee moom itam ñoo ngi koy ziar moom itam di ko ndokkeel dafay laaj moom miqdaaru nisaabil xubub wal fustaq moom li muy laaj la jëm ci wàllu azaka day laaj ne moom dugub ñaata lañ ci war a am asaka dog caa war a génn waaye gerte itam ñaata lañ ci war a am dog ci war a mën a génne asaka dañ ko naan nisaabul xubub yi yu saawi sab'a mi'a wa xamsuna kilogramme ne bu fekkee ni dugub la da nga ci war a am sept cent cinquante kilogramme te defe naa mooy juróom-ñaari barigo ak juróom fukki kilo su boobaa ngay war a génne asaka ci dugub jooju nga xam ne ji moom nga bay waaye tamit bu dee ni gerte la nisaabul fustuqa yu saawi thalatha mi'a wa xamsa wa sab'ina kilogramme bu dee ci gerte la da nga war a am trois cent soixante quinze kilos te mooy ñetti bërigo ak juróom ñaar fukki kilo ak juróom loolu itam moom nga war a am ci gerte dog caa génne asaka kon daal bu dee dugub la da nga ci war a am juróom ñaari bërigo ak juróom fukki kilo asaka dog caa war bu dee gerte la da nga war a am ñetti bërigo ak juróom ñaar fukki kilo ak juróom asaka dog caa war su ko defee ñaari lim yooyu nag boo ko amee bu fekkee ni ci taw rek maanaam la ñore maanaam soo cay génn asaka maanaam fukkeel ba rek ngay génne maanaam bu dee ni da ngay wàññi da ngay natt fukki kilo yoo natt maanaam génne benn kilo wala téeméeri kilo yoo natt génne fukki kilo noonu lañ koy génne bu fekkee ni am am ndoxam taw moo ko roose ba mu ñor ba nga góob ko moo xam dugub ji la wala gerte gi bu fekkee ne nag da nga ko doon roose ci ab di root ci teen di ko roose muy màgg di ñor ba ñor wala ci robinet nga doon ca fere maanaam da ngay xool bu fekkee ni loo doon bëgg ci teen la da nga naan loolu nga doon def par kilo bu dee fukk fukki fukki kilo yi da nga dindi dindi benn kilo ba léegi benn liibar ngay génne bu fekkee ni téeméeri kilo la nga waroon a génne fukki kilo da ngay génne juróomi kilo ya kon daal noonu lañ ko war a génne bu dee dugub sept cent cinquante kilogramme mooy li ñu war a génne asaka bu dee ni gerte la trois cent soixante quinze kilogramme mooy nisaab ba ñaareelu laajam bi mooy moom Moussa Ndiaye day laaj man maata wa taraka maalan wa alayhi duyunun fa abal warithuna hazihi duyuna hal al ismu ala al mayit awil warasati la ne nit ki dafay bu fekkee ne dafa faatu bàyyi fi alal fekk am na ñu ñëw ne moom dañ ko ki faatu da leen a yoren ay ay bor léegi ñi nga xam ne ñi ñoo ko war a doon bañ bor yooyu wedd ko maanaam nunguwuñu ko léegi bañ googu ñu bañ bor yi ki faatu moo ci amee bakkar wala ñi nga xam ne ñi ñoo koy donnu ñoo ci am ay bakkar loolu lay laaj dañ ko naan xadaau daynil mayti muqaddamun ala qismati tarikati dégg nit ki bu faatoo li nga xam ne lii maanaam moo war a jiitu ci liñ ko war a defal ginnaaw buñ ko waajalee ba denc ko mooy ñu fayal ko ay borom bala ñoo miraas la nga xam ne lii moom la am ci alal fa in qassamuha duna xadaa dayni faqad taaddaw ala xaqi muurasihim ne bu fekkee ni dañoo ki fi jóge dafa am ay bor bàyyi fi alal jooju ñu séddoo alal ja ci ne maanaam dañ koo miraas ba ku ne ñu séddoo ko te fay luñ ko ay borom ne ne jalgati nañu xaq ki nga xam ne kii moom lañu donn fa milkuhum li tarikati laa yazharu illa baada xadaa dayni ne ne ndax ñoom bala ñoo am sañ-sañam ne ñoom ñoo moom alal ji nga xam ne ji moom la fi kooku faatu bàyyi maanaam balañ koo moom dañ koy fee dañu ko war a feel bor yooyu nga xam ne yii moom lañ ne moom lañ dañ ko da ko amel ay nit ba pare dañ ko war a fe fere feyal ay borom ba noppi doga am nag xaqi mën a séddoo la ca des ci kaw miraas ndax yàlla subhanahu wa taala mi ngi wax ne min baadi wasi min baadi wasiyatin yuusi biha aw daynin yàlla dane nit ki daal bu faatoo nañu xool la nga xam ne ni moom la dénkaane ne nañ ma ko defal suma faatoo ñu xaaj alal ji ñetti xaaj génn ca dénkaane boobee waaye itam bu dee bor la moom dañ ko war a fayal bor ya ba lu des ca alal jamaana ñu dëkk koo mën a séddoo fa in qassamuha nuqidat li annahum qassamu ma la yamlikuuna ne ne bu fekkee ni dañu ko séddoo ci miraas nañ ko séddoo ko ku ne jël sa wàll te fay ñu bor ya ne ne bu fekkee ni ci charia la ñu atte foofee loolee ñu séddoo te mooy miraas ma dañ ko war a dindi dañ ko war a firi maanaam ba boolewaat alal ya ba génn ca bor ya nga xam ne moom lañ ne ñooñee déclaré ne moom lañ ko am moom la leen amal ñu doog a séddoo la ca des xam naa loolu moom ku ko def yaakaar naa sa mbokk moom nga xam ne dafa faatu defe naa amoo ci moom yërmande amoo ci moom yërmande ndax mbokk jóge fii ay nit ñëw ne dañ danoo yoral ay bor day ku yërëm mbokk mbokk ma nga xam ne faatu na bor yooyu maanaam bu fi bàyyitan alal sax yow war nga ko ko mën a fayal ci sa alali bopp rawatina nag mu faatu bàyyi fi alal ay nit ñëw déclaré ne yor nañu bor nga bañ koo fee loolu moom dara àdduna jëru ko dara dara dara dara dara jëru ko ndax moom jëm ay nit ñëw na rek ne yoroon na may bor yow li war ñi fi nekk te war koo donn war a miraas alalam jooju la leen war mooy bor yooyu moom nañ ko fay bu ñu jéem a lijjanti ndax kii wax na li mu wax nekk na wala nekkut jéem yoral na may bor am na rek lay war mooy maanaam bor booba ñu fay ko kon loolu moom di gàntal ay bor yu ñu déclaré ginnaaw nit bu faatoo moom te nit ka bàyyi fay alal joo xam ne ji mën nañ koo fay bore moom loolu moom dara jaru ko dara loolu moom kenn waru ko def du yëfu jullit du yëfu jullit de yeneen laaj ci topp al ustaz Alioune Badara Ndiaye moo ko fi yónnee moom itam ñu ngi koy ziyaare moom itamit di ko ndokkeel bu baax a baax moom itam moom itam day laaj comme daanaka mooy lee Moussa Ndiaye doon laaj rek xawu ñoo sore mooy dafa laaj moom ne ne man maata wa taraka maalan wa alayhi duyunun fal afdalu qadaa'u duyuni aw talabu i'faa'i duyuni min ashaabiha dafay laaj ne waaw nit ki bu faatoo jóge fii ndax li gën ci moom mooy ñu feyal ko ay borom wala ñu baal ko borom yooyu maanaam dem na sax bay wax ne bu fekkee ne ay waajuram la wala ay jege ñaale maanaam ñu baal ko bor yooyu nga xam ne moom la leen ameel moo gën wala sax dañ leen a war a forcer ci ñu baal ko bor yooyu day wax daal ñaar yooyu ban moo ci gën fay bor ya ak baal ko bor ya dañu naan xaala sallallahu alayhi wa sallam nafsul mu'mini mu'allaqatun bi daynihi xataa yuquba anhu sallallahu alayhi wa sallam muy sayyidina Muhammad nee na nit ki daal su faatoo mu ne ne bakkanam boobu dañ koy acc dañ koy acc ci borom maanaam dafa bëgg a wax ne daal fekk bor yooyu maanaam mënees na ko fay te fayuñu ko day mel ni day am fu ñu koy acc boo xam ne fii fekk fayuñu bor ba rek maanaam jëmm jooju du jóge foofu kon fal xadiisu fiihi xasun li awliyaa il mayti ala qadaa daynihi in istataaw kon ne ne xadis bi mu wax nii buñ ko jàngee buñ ko déggee mooy xadis bi day soññ ñi nga xam ne ñi ñooy bokki ki nga xam ne ki dafa faatu ci boo amee ay bor maanaam la ci gën mooy maanaam nañ ko ko feyal bu fekkee ne mën mën nañ ko fay walaw lam yatruk maalan wastataa awliyaahu an yasuddu anhu fa zalika min amalil xayri ne ne donte ki faatu sax maanaam bu faatoon jóge fi te bàyyi fi alal te ñoom ñi nga xam ne ñi ñooy ay mbokkam ñu mën koo feyal borom yooyu ne ne lay gën maanaam mooy ñu feyal ko borom yooyu te yàlla tax ndax ne ne loolu day bokk ci jëf yu baax yoo xam ne yi buñ ko defee yu saabuna ali maanaam dañ cay amee ab yool fa sadaadu day nihi afdalu kon maanaam jikki di ko bàyyil ay borom wala ñu naan ñamu yoral ay bor moo xam ne yaayam la wala bàyyam wala ku mën a doon ci jegeñaaleem la ca gëndal mooy nañu ko fayal borom yooyu nga xam ne yii moom la fa bàyyi su fekkee ne bàyyi na fa alal ju ko mën a fay su fekkee ne bàyyi ko fi it la ca gën it mooy su ko ko mënee fayal ñu fayal ko ko moo gën ñu di ko baal luñ ko jege jege daal fay ga moom moo gën waaw kon loolu mooy noonu lañ ko war a jàppe daal beneen laaj bi ci topp sëñ Moustapha Thiaw moo ko fi yónnee moom itam moom ñu ngi koy ziare dafay laaj xokk mu tarki nawafili moom dafay wax ne ki nga xam ne ki ay naafila daal di xaw koo yitteel maanaam farata yi rek lay julli waaye naafila yi daanaka du ci def genn muy laaj nag loolu moom lan mooy atte ba daal dañu ko naan falaa yanbaghi lil muslimi an yata'ammada tarka sunani min duni udhrin ne ne daal ab jullit daal du yell ci moom muy bàyyi bañ a def julli naafila yi ak naafila gu mën a doon rek mu koy tay di ko bàyyi ci lu dul ngànt loo xam ne lii moo tax mënta def naafila yooyu maanaam jullit bi daal dafa war a góorgóorlu ci naafila yi nga xam ne yii moom la ñu tef ci biir sharia maanaam mu ànd ak julli yi nga xam ne mooy julli farata yi ak bu dee asaka yi mooy asakaay farata ja am na naafila bu dee koor itam am na koor naafila ba bu mën a doon rek ne ne jullit bi dafa war a góorgóorlu ci sunna yooyu ci naafila yooyu di ko def waaye waru koo sàggane ne ne wa man faala dalika faqad fawwata ala nafsihi xayran kathiran wa ajran aziman ne ne képp koo xam ne ki ne da ngaa tay ci sa coobare rek nga tànn ne man daal naafila yi du ma ko def ne ne na nga xam ne maanaam rawle nga rëccël nga sa bopp ay njariñ yu baree bari ak ab yool bu rëy rëy boo xam ne bi maanaam waran nga ko maanaam ci naafila yooyu ak sunna yooyu nga xam ne yii moom nga sàggane ne ne fa hadihi sunanu tujbiru naqsa allazi qad yaxsulu fil faraidi ndax ne ne sunna yi sax muy naafila yi maanaam mooy defar wàññite maanaam mànkite gi nga xam ne gi mën naa am ci farata yi nga xam ne yii moom ngay def maanaam ne ne nit ki mën naa julli julli goo xam ne goog farata la am lu ca manki bu naafila naafila googe maanaam motulil ko loola ak beneen naafila bu mën a doon rek nee na dem luy farata soo ko defee lañ la ne sunna la ci wala naafila la ca nga def ko ne ne su fekkee ni dara daa yàqu ca farata joojee soo defee naafila googe wala sunna soosee maanaam loola moo koy defar kon jéem naafila yi ak sunna yi mën naa am mën naa defar loo yàq koo xam ne gi mën naa am ca farata ya kon loolu kenn waru koo sàggane qaala sallallahu alayhi wa sallama inna awwala ma yuxaasabu alayhi al-abdu yawma al-qiyaamati min amalihi salaatuhu sayyiduna Muhammad ne daal nit ki su bés pencee la ñuy jëkk rek la ci ay jëfam mooy ak julleem fa in salahat faqad aflaha wa najaha wa in fasudat faqad xaaba wa xasira ne na bu ñu xoolee julli gi su julli gi baaxee yeneen jëfe yi ci des yëpp ci julli gi lañ koy atte bu ko defee mu daal di texe daal di am xéwal bu rëy rëy waaye bu ñu xoolee ne julli gi yàqu na baaxut yeneen jëfe yi des yëpp it ci julli gi lañ koy atte su ko defee mu daal di sooy daal di ñàkk daal di perte kon jéem naa file yi mën naa defar ay julli yoo xam ne ñu day yàqu daal nit ki dafa war a góorgóorlu ci kémtalaay kattam kattanam lu mu mën cee naat fi mu di ko def ginnaaw bi mu defee farata yi ba noppi te ci julli naafila yooyu nag rawatina bu dee guddi yàlla dañu ko digal xemem loonu ko lool ndax na ne wa minal layli fa tahajjad bihi naafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaamam mahmudan yàlla dafay wax ci alxuraan ne yow jullit bi soo ko mënee su guddeetee na nga jóg di def ay naafila yoo xam ne da nga koy def ngir jaamoo ma ko ci guddi googu ndax nee na ci naafila yooyu ne ne man yàlla ci laa la mën a defale ay maqaama yoo xam ne yu koowee kaw la yoo xam ne yi maanaam ci julli naafila yoo rek nga ko mën a amee te gis nga ne ne maqaama yi maqaaman mahmudan jooju muy wax naa yoom gis nga ne ne ci naafila yi rek la ko digge waaye diggewu ko sax ca farata ya tey dafa delluwaat moom yàlla tàggaat ñi nga xam ne ñi maanaam dañuy naafila rawatina ñuy naafila guddi mu ne tatajaafa junubuhum anil madaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tama'an wa mimma razaqnaahum yunfiquuna nee na am na jaam yoo xam ne bu guddee dañuy bàyyi seen lal ya jóg di naafila tatajaafa junubuhum anil madaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tama'an wa mimma razaqnaahum yunfiquuna la ci yàlla teg mooy fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kaanu ya'malun ne ne naafilu yooyu ñuy def ci guddi nag te yàlla rek tax yàlla ne ne la ma leen cay fay ci loo xam ne luy sedd ab xol la maanaam ne ne kenn mënta xam nu mu toll ba bés ten ba ba ba ba ma di leen ko fay te yonente sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci benn xaalis boo xam ne bi yàlla moo ko wax ne ne maanaam sama jaam bi daal defal lu ma lu ma gënal mu defal ma farata yi nga xam ne moom laa farataal ci moom waaye ne ne am na sama jaam yoo xam ni dinañ def loolu ma farataal ci ñoom ba pare walbatiku nag di naafila di def ay naafila yu bari yoo xam ni lañ ca bëgg mooy maanaam ma sopp leen ne ne buñ saxee ca naafila yooyu ba ma sopp leen maay nekk seen bët yi ñuy gisee nopp nekk seen nopp yi ñuy déggee nekk seen loxo yi ñuy jàppee nekk seen tànk yi ñuy doxe te ne ne bu boobaa sama jaam boobu jéem àgg na foofu rek lu ma ñaante rek maanaam dama ko koy daal di may kon nga gis ne gis nga loolu nga xam ne lii moom la yàlla wax ci wàllu naafile yi sax maanaam waxu ko ca farata ya ndax farata yi moom loo xam ne lii moom yàlla cib sañ-sañam ak mu neex ko dañu ko teg muy lu nu war a def ne ne ku ko def moom da nga ci am ab yool da nga ci am ngërëmal yàlla waaye ku ko bàyyi itam da nga ci am ay duma waaye bëri ni naafile nag ci naafile yi rek la diggee ne sama jaam bi dina ma defal sama farata yi ba pare waaye di naafila ay naafila yu bari yoo xam ne daf ma sopp rek bëgg ma ba man yàlla ma bëgg ko su booba bu ko defee lu ma laaj rek maanaam ma daal di ko koy may kon naafila yi daal dañ ci war a góorgóorlu bu baax a baax ndax ay ngëni la ngi ci yoo xam ne yii daanaka mën nañ ne rawante bi yëpp daanaka sax day bëgg a daal di dellu foofu ndax faratay moom ñëpp a ci maasa ci atta bi moom benn la boo ko defee am ab yoon boo ko bàyyee am bàkkaar ay duma war ci am waaye naafila yi moom daanaka rawanteeg daraje yooyu yëpp daanaka booy xool foofu lay feeñee kon nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax yeneen laaj yi ci topp Basirou Faye moo ko fi tàbbal ñoo ngi koy ziar bu baax a baax Basirou Faye dafay laaj sujudu tilaawati maanaam alxuraan dafa am ay aay yoo xam ne buñ ko jàngee dañoo war a sujjóot muy laaj sujjóot boobu naka lañ koy sujjóotee ak it bu fekkee ni ab alxuraan dañ koy jàng ginnaaw tàkkusaan bu ñu àggee ci sujjóot boobu maanaam nan lañ war a def ak sujjóot boobu waaw dañun ko naan sujjuut boobu mooy nga xam ne dañ koy def ci yenn te ay yi nga xam ne dafa nekk ci biir alxuraan ci suñu koy sujjoot comme ni ñuy sujjootee bu nuy julli rek lay doon soo koy sujjoot da ngay wax allahu akbar sëgg teg sëb ji ci suuf wax subhaana rabbil aala loo ca mën a wax mën nga koo wax daal di sigiwaat waxaat allahu akbar waaye doo ca sëlmal noonu moom noonu lañ koy sujjoote waaye tam bu fekkee ni dañuy da nga jàng alxuraan ginnaaw bi ñu julee tàkkusaan te dañ ne tàkkusaan dañuy bañ ginnaaw tàkkusaan ak naafila maanaam sujjuut bi moom duñ la ko teree lu dul ni maanaam jant bi dafa dem ba xonq soo de jàng alxuraan daal fekk jàng jant bi demagut bay waajo so nga xam ne xonq na mi ngi waajo so foo fi jàngee aay boo xam ne bii dafa war a am ab sujjuut mën nga koo sujjootal waaye nag bu jant bi tàmbalee di waajo so moom dootoo ko sujjootal su ko defee bu dee suba la itam boo xasee julli suba ba fekk jant bi di waaj a fenk mu leer na fi mu ne jant baa ngi bëgg a fenk jege na lool boo fi jàngee aay boo xam ne war nañ ko sujjootal it mën nga koo sujjootal waaye bu jant bi commencé di fenk itam diggante ba moom dootu day setu fi sujjoot lu dut ni jant bi dafa fenk ba maanaam naafi la dagan su ko defee sujjoot boobu daal bu dee ci ni ñu ko defee mooy comme ni ngay sujjoote booy julli rek waaye doo ci booleb salmal ginnaaw allahu akbar ba mujj ba waaye bu dee waxtu yooyu bu dee ngoon la ginnaaw tàkkusaan fekk jant bi demul bay waaj a so mën nga koo sujjoot bu dee suba it ginnaaw bu ñu jullee suba fekk jant bi demul bay waaj a fenk mën nga koo sujjoot su fekkee ne da nga koo jàng ci jamono yoo xam ne nag maanaam mënoo sujjoot noonu comme waxtu yooyu maanaam liñ koy remplacer mooy soo ca gay nga wax subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar wax ko ñeenti yoon nañu loolu lañ koy remplacer su fekkee ni da nga koo jàng ci jamono yoo xam ne yi mënoo koo sujootal beneen laajam bi ci topp day laaj xukmu maalil kaafir xabla islaamihi day laaj waaw ab yéefar bu duggee ci islaam maanaam bu tuubee jébbalu alal jooju mu aman lan moo di bàtteem ñu ne ko fal maalu la sik tasabahul kaafiru xabla islaamihi yuufaalahu an ma xubida minhu xabla islaamihi amma ma lam yaqbid thumma aslama fala yaxilu lahu amma ma lam yaqbid thumma aslama fa fala taxilu lahu waaw dañ ne alal ji nga xam ne ji ab yéefar da koo am njëkk mu dugg ci lislaam su ko yàlla baaxee ba mu dugg ci lislaam loolee mu jota na am ci alal lu dagan la ci moom maanaam dara waru ko ca jéggal nañ ko ko mu doon alal joo xam ne ji ju lew la ci moom lu mu amal rek njëkk muy jébbulu waaye nag ne ne su jébbuloo nag lu mu amul ten ca alal yooyee loolu moom doodu ko dagan maanaam li ñu bëgg a wax mooy su fekkee ni yéefar bi daa nekkan koo xam ne ki kuy jaay sàngara la wala muy carte wala muy def ribaa ba am alal yàlla baaxe ko mu tuub jébbulu lu mu amee woon ca alal yooyu mu doon sàkku ci anam yooyu nga xam ne lislaam bëggu ko rek loola moom dagal nañ ne ko mu doon alalam waaye nag yooyu mu doon jëfandikoo saa bu tuubee jébbulu rek maanaam dootu lislaam sharia dootu ko may muy jëfandikoo ti yooyu man di jël foofa alal maanaam su booba bu fekkee ne da doon jaay sàngara lu mu deseen ci sàngara sax daa war a tàggoog moom waratu koo jaay di ca jël dara bu fekkee day doon def riba itam yi nga xam ne ci wàllu riba la yooyu da ko war a bàyyi war a tuta jël jooja alal kon daal lépp loo xam ne li am na ko daal njëkk muy jébbulu moom loola dagan na ci moom comme ni mu tuubee jébbulu doon ab jullit noonu la alal ji jébbuloo rek mën nañ ko wax waaye lum lum dañuy bu jébbuloo nag charia moom dootu ko may yooye maanaam comme riba yaag jaay sàngara ak yoo xam ne charia nugu ko mu dee di ca def dara ngir di ca amee alal ja bu boobaa mu jooju alal moom du baax kon bu dee yéefar bi daal loolu mooy atteeb alalam qaala allahu taala fa man jaahu mawzatun min rabbihi fantaha fa lahu ma salaf yàlla dane képp koo xam ne kii dégg nga ak waar ñu lay waar ci sharia ci lislaam ba nga dugg ci ba mu dugg ci lislaam fekk ab yéefar la ne ne mu daal di jébbulu daal di bàyyi sàkku alal gu araam googu mu doon sàkku ne ne lam te jotoon a amee dagan na ko mooy fa lahu ma salafa lam te jotoon a amee ci alal loola dagan na ko ay laysa alayhi raddu ma axasa min ar-riba xabla islaamihi ne ne duñ ko forcer ci ne maanaam duñu war a ci moom ne ko loo amoon ci alal jee daal ci lu aram yee da nga koy bàyyi jëm dugg nga ci lislaam waaye lu mu amoon rek booba dagan na ko waaye nag bu duggee moom day daal di war a bàyyi yooyu nga xam ne yi sàkku alul la boo xam ne bii lislaam nangu ko yeneen laaj yi ci topp soxna Cubba Njaay moo ko fi yónnee soxna si ñëw lay ziar bu baax a baax waaye naman nañ la nag ci liggéey bi ne soxna si gën nañ laa dégg lool de waaye xam naa yittee jamono ji rek waaw yow moom dañ buñ la gëj a dégg ci groupe bi rek moom dañ lay xaw di laajte daal waaye nag jëm jàmm rek baax na jëm jàmm la baax na waaw waaw soxna si dafay laaj xukkumul xiraat yi xalfal imam bi nisbati lil marati xataa yusma sawtuha dana dafa am ay soxna yoo xam ne daal bu ñuy julli bu imam di jàng dañu ànd ak moom di jàng ba ngay dégg seen kàddu ya dañ noo foofu dañ ko naan xaalal malikiyatu tukrahul xiraatu lil ma'mum fil jahriyati wa in lam yusma wa in lam yasma al imam wa mandubatun fi siriyati waaw ñi nga xam ne ñi dañuy tënku ci ngiram imam Malik dañuy wax ne maanaam nit ki buñ koy jiite sax bu imamam day jàng ca kaw njàng moo xam ne njàngam biral la ñoom dañuy sib yow mi ñu jiite ngay jàng bu ko defee bu dee ci jullik mu yàllu la nag ne ne moom ba tey dañ koo sopp sax nag kon dafay mel ni kon yow daal buñ la jiite bu la neexee mën ngaa bañ a jàng ci bu fekkee ni da nga sukkandiku ci ngiram imam Malik ndax ne ne bu fekkee ni dañ la jiite te imam bi la jiite day biral maanaam day jàng ca kaw maanaam nañu ne nañu ñoom dañuy sib ngay jàng bu fekkee ne jullik yàlla la itam ne nañu dañuy sopp maanaam nga jàng rek bu la neexee jàng kon bu la neexee bañ a jàng bu ko defee dahabal malikiyatu ila karahiyati jahril marati fi salaat maanaam soxna jigéen moom ci boppam bu dee ci ngërëm imam malik la ñuy sukkandiku dañ ne maanaam dañ koo tere maanaam muy yëkkati kàddoom ca kaw ci biir ak julli moo xam njàngam faatiha jala ak saaro ak lu mu mën a doon ca biir julli ga rek dañooy bañ ci nit ki ci jigéen gi maanaam mu koy wax ca kaw ñu di ko dégg rawatina nag kon bu fekkee ni moom soxna soosu wala soxna yi dañ leen di jiite ñuy kebetu di wax la nga xam ne lii moom la imam ja wax ba nit di ko dégg loolu moom baaxut loolu moom duñ ni jullee lu baaxut daal loolu dañ koy bañ jéem góor ñi sax dañ leen ne bu imam bi wax ca kaw diglu leen kon rawatina soxna yi ndax soxna moom bu doon ni moom doo ngay andi gépp julli gu mu mën a doon dañ ko naan maanaam na nga jàng ndànk bu la kenn dégg waaw kon daal dañoo war bu ñu toppee ci imam ne cell diglu ko la muy jàng te bañ a yëkkati seen kàddu yooyu bañ di ko dégg ñuy topp imam ja beneen laajat bi ci toppaat mooy ad-du'a asna al azan soxna si day laajat ne dafa am ñoo xam ne itam bu ñuy nodd rek ñoom dañuy wëy di ñaan rek ba kera nodduga di pare foofu liñ ko fi wax mooy dañ ko naan mutabaatul muaddini afdalu min ad-du'a summa du'a bima shi'ta dañ ko naan noddukat bi daal bu dee noddu lay gën mooy yow mi dégg nodduga maanaam nga topp ko maanaam di ko toppandoo maanaam la muy wax nga di ko wax su noddee ba daaneel nag léegi yow mën ngaa ñaan loo xam ne lii soom na la rek ci loo bëgg ci lu baax adduna ak alaxira waaye daal dañu gën a bëgg ci nodd la mooy bu ñu bu noddukat bi nodd la muy wax di ko wax nga di ko wax ba àgg ca foofu muy wax hayya ala saat hayya ala falaa bu boobu moom yow la ngay war a mooy la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim waaye su noddee ba daaneel nag la lay waral mooy danga war a ñaan lépp loo xam ne lii bëgg nga ko ci sa mbiri àdduna ak àllaaxira ci aw yiw na lool daal mooy li nga xam ne lii mooy gën ci wàllu nodd beneen laajam bi dafay wax ne addu'a fi rukoo ne dafa am ñoo xam ne ñi bu ñuy rukoo daal jamono foofu dañ fiy ñaan foofu it xaala sallallahu alayhi wa sallam ama rukuu fa azimu fihi rabba wa amma sujudu fajtahidu fi du'a yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne bu dee nit julli la daal fi nga xam ne fii fi la ñuy rukooxe ba ke dañu yegg ci sujjóot ba foofu na neen na ngeen fi màggal seen borom mooy booy rukkoo da nga war a subhaana rabbiyal azim waaye tamit ne na bu leen da ngay sujjoot itam ne nañ na ngeen góorgóorlu ci ñaan kon daal foofu lañ fay dégg ci xaddis bi mooy ab rukkoo booy tàmbali dugg ci julli gi ba jaar ci rukkoo bi dem ba ca sujjoot ba diggante boobu yëpp waroo fee ñaan waaye la fa gën mooy booy rukkoo nga wax subhaana rabbiyal azim ba kere ngay siggi daal di sëgg wax allahu akbar ci sujjoot ba ne na nag boo sujjootee moom foofa ne nañ loola neex mën nga ko fa ñaan kon daal li xaddis bi wax mooy bu ñuy rukoo bu ñu ñaan waaye nañu màggal yàlla waaye bu fekkee ne nag dañuy sujjóot moom foofu ne ne loolu mën a ñaan ci lu baax rek maanaam nan ko ñaan foofu ca sujjóot ba ak diggante ñaari sujjóot ñi kon ñoo ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di di tub di jéglu di dellu di ziyaare ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu